na kay tey ñu ngi góorgóorlu waaw euh, ñëw nga ci tournoi vingt-troisième édition édition drapeau du chef de l'État ah, ah. daaw nga demoon final à Diourbel ren nga ñëw demi final ku la daanal final daaw mu la daal itam demi final ren boo gisee tournoi bi waaw tournoi bi moom vraiment neex na neex na organisation bi rafet euh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp compétition lay demee il faut am ko gagné am ko perdre yàlla dogal na perte nan dañ koy sant yàlla dana defar war rek ba beneen. mais revendication bi def ci région de Fatick trop. Euh, Fatick Dakar revendication bi bari na luy problème bi. waaw problème moom c'est très simple au niveau des 86 kilos. ki naan Ameth double moteur moo doon bëreeg Siny Bargny ñun li ñu constaté mooy Ameth Ameth moo daan Ameth bu Fatick moo daan bind nañ recours nag ñu war a saytu recours bi saytu na nee li arbitre wax mooy dëgg am na daan nangul nan leen ko dellu leen ci yàlla. soo yow troisième place ngeen bugg a def daaw itam gisoon naa amoon nga final 66 kilos amoon nga final 86 kilos amoon nga final 100 kilos amoon nga itam final par équipe ren boo ko calqué itam final 106 kilos nga am. waaw gënul. franchement mu des techniquement après mën nañ expliquer mais mënoo jógee ci dem euh, final am quatre individuels ñëw ñu yaakaar ni équipe bi moo gën nga ñëw passe carrément à côté gënu il 2011 euh, la commencé par équipe région 2011 2018 kon daa 2018 2018 ngeen kenn commencé cinq fois jël mais depuis 2018 2018 ba tey yooyu ci teg ci titre bi te mënoon nañu ko te région de Fatick boo ko waxee itam nga wax ay champion bari na ay champion champion boo ko wax ci région bariwul muy problème bi ak mbëri ak muy problème yi dafa manqué moom ñoo moom seen bopp. yow mii tey. Mhm. ku la mën a fay lépp li lay fay nga dem. c'est très simple. mbir yi ñoo moom seen bopp man moom ma leen. dama naan présélection am na yenn saa yi mbër yoo xam naan la indil jox ma trois cent mille ñu naan la jox ma quatre cent mille ñu naan jox ma six cent mille am na nag mbër yu ci gore yoo xam du la laaj ñaari dërëm foofu lañ toll. waaw mooy mooy dañ leen dañ laaj. am na ñu am na ñu ciy laaj xaalis mais du ñëpp mais am na ñuy laaj xaalis. mais am na ñoo xam ne du laaj. am na ñoo xam ne du laaj di ko jël lu bëree bëree bëri mais équipe toujours xale yi dañuy màggat xale dañuy changé catégorie loolu moo waral Fatick daanu mais dina defar te dina ñëwaat incha sama troisième place laay préparé. jaajëf papa di gërëm ñëpp. merci jaajëf merci beaucoup.